yàlla na nu yàlla musal ci ñoom ñi leen di financé yàlla na leen yàlla nasaxal parce que financé pour indi góor jigéen Sénégal képp ku koy lekk billahi dëkk doog jullit man dee ak xiif moom ma gënal ay góor jigéen di ma joxub xaalis est-ce que Sénégal man lii sax dama ne c'est une chance c'est une vraie chance nu jàpp nag ci yàlla mi nga xam ni ku jàppul ci moom di nga daanu wàkkiir lu gëm sunu bopp bu dee lekki fonde sax nu lekk ko te suur alali ñi nga xam ne dañ naan da ngeen di lekk bu ngeen légaliser góor jigéen dootu leen am xaalis bu buñ gëmoon suñu bopp duñ soxlaal kenn dara bay jëgaani tool yi nu yor ndox mi nu yor géej gi nu yor suñu lépp bu nu ko téye woon billaahi du nu jëgaani mais amuñu fulla amuñu nu indépendance tubaab bee nu yor ba léegi tubaab bee suñu patron parce que fit wi moom moo des fit wi xam nga indépendance aw fit a koy maye <laughs> walaay ku ragal du jam guy boo amee fit léegi nga dem saw yoon tubaab bi mooy kan tubaab bi dalaa gën hmm? tubaab bi da ngeen nuroo nuróowutub dara rek mais am xel la yor nga yorum xel